dugaloo ko xol nag sama sama son bee xaw a am problème mais maa ngi insisté ci ci ci euh, ci faaru te sax du yoon bu ma ci bu ma ci concentré wu c'est trop parce que nit ñi dama xam ne joxoon kaf retard def du genre parce que ñëpp loolu lañ ma xamee parce que ku ñàkkoon moo am nag. ah ku njàkkaw te ngeen nag woor ba xam weeru yu weeru yàlla parce que weeru yi dafa salisam moo tax loo loo ciy def lu baax rek da koy def lu baax sama yaay faatu yal na la yàlla soppi yal la yàlla bu dee xew moo tax xew yi moo tax wax yu metti yi di insister ci waa moment te moment dafa fragile bu defal ci saar yow tegal tegal kii te eh, yaay yaay dafa salisam ci ci doom hmm? maa ngi lay jéggalu di la baalu di la baalu bu baax a baax nag mais ëllëgee booy waxati surtout booy wax xale bu réew nga xam ne war a waxee ak xale bu la xamal da nga xam ne war a waxee ak xale boo xam ne ay nit da laa ay nit àdduna bi di sa parcours rafetlu parcours benn parcours nga am ci lu rafet muy ay way a dox di way parcours bu ñaaw nga am parce que yaa bindoo bindu ñaaw xaritoo xaritu ñaaw yor melokaanu melokaanu ñaaw kon kon nag da nga war a xam ne waxee xale xale boo xam ne dafa réew te loo xam ne àdduna dañ ko bëgg yaay yaay comprendre Fatou yal na la yàlla suturaal yal na yàlla sàmma yal na yàlla aar Hmm? yal na yàlla sopp bu baax a baax yal na la yàlla aar bu baax a baax yal yàlla soppi man sa doom laa sa xarit laa li may def yëpp dama doon foo ma jublu woon foo foo kese ma jublu woon waa kër ñu may woo ma bàyyi la sama famille ñu may woo pour ma bàyyi la bàyyi naa la nag ba ci kaw bàyyi boo xam ne aw ma ci yow lenn ko ki ñaan ku nekk sama dindi ma ne wala ku xool ku xool ko bon aw ma ci yow lenn loolu xool bon aw bonu ma xaw ma nu bonee damaa baax daal yàlla yàlla suturaal maa ngi coupé direct bi parce que damaa bëgg a naafile julli ñaan ci yàlla maa ngi coupé ah maa ngi coupé ñaan ci yàlla allez ciao. ñu xaar waaw.